bokki jullit yi gannaaw bu nu sante sunu boroom subhaanahu wa taala julli ci yonenteem ba seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam noo ngi baal xaq ñépp tey balu xaq ñépp yàlla nanu yàlla boole jéggal tomb bi ñuy fàttalante dañu koy tënk ci mbir moo xam ne lu xew-xew jamono bari bari lu metti metti lu mu neex neex lum siiw siiw lu mat di bàyyi xel la ndax li mbokk mi dañ doon fàttalante ci lenn ci lim doon fàttalante léegi ku bàyyi xel bis bi ñuy fàtt ñu bëgg a waxtaane tuuti lu muy def lu rekk dana xool bu dee yoxoom ay yoxoom a ko nar a jëf dana xool bu baax ba xam jar na ko wala jëru ko bu dee fu tànk di dem noona bu dee lu ay gët di xool noona ba cëri nit ki mat bokk yi bis boobu gannaaw bu turu sunu borom bi jàllee ci alxuraan moo ci ëpp ay tur wala bokk yi ci ëpp ay tur la bokk wooye na ko moom sunu borom subhaanahu wa taala ci téeréem bii tur yu wóote tur yu bari nag ci nattub nit ñu jëkk ña moo tànk bu gudd daana tegtale ne kii jàmbar dëgg ngi nii ndax dëkk bu nekk jaloore yam fa def ak nañ ko fa wooye muy bis bi nga xam ne waroom xam-xam yi buñ daan jàngale ba agsi ca dañu ko fay jéggi jàll ba jamono ya ko ñañ koy jàngal di mën a dégg man koo ragal ci seeni jëf ak seeni wax muy bis boo xam ne fukki yëf ak yaar aju na ci waaye benn rek lañ ciy jël tey rekk gi nag tekki wut ne daa amul solo wala daa yées ay moroomam waaye day mel ne benn boobu ñu ci tànn moo tax bis ba jóg sax far ndax cib lim nangu nañ jiital li gën a bari wala ki ëpp solo ña ca topp topp ca muy diw ñoom wala nga mujje ko mujje ka ca ëpp solo jublu ca boo ko tuddee dootu dar keneen fukk yëf yooyu ak jaar benn bu ca nekk jar na nit bañ a lekkati ba suur wala bañ a nelawati ba doyal ay nelaw sakkantumaag di dox ci yann yi bokk yi fukki yëf yi ak yaar ba ca jiitu balaa bis ba agsi nit ki day dee ba noppi lépp loo xam ne bala caa kenn dem jaar ci dee nag xam nañ ne du lu wayaaf du lu wayaaf lu diis la dee nag mooy lan mooy ruux gii na ci nit muy dem ak dikk di xàmmee di ràññee saa bu tàggoo ak yaram bi yaram moo lañ naan ku dee la duutu mën dara duutu yëngal benn cër lu cay topp dee googu nag mën naa mën naa dee ci ëpp dëkk mën naa dee ci àll waaye bàmmeel la cay topp bàmmeel nag sëñ bu mag bi jàngale na ci ab téeréem ne jële ko ci njàngal mi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne doonul kuñ suul rekk waaye ku ak ruuxam tàggoo aku yaramam laajkat yi danañ ko laaj bu ñu ko suulee ak bu ñu ko suulata ci yàpp kon foofee muy jaar ju du ko tudde bàmmeel bala moo dugg bar sax mooy fañ koy laajee moo tudd bàmmeel fa la nit di tàmbalee gis mbiram muy jag mu wóor ko ne day jëm kanam wala mu tàmbali faa gis ak jagati mu wóor ko ne kanam la jëm yàlla nañu ci yàlla musal waaye su dee amee bañ suul nit ki wala dee am na waaye suuluñu ko ay raba ko lekk wala daa lab jën yi lekk ko wala dafa lakk téewul xereñ ak suñu borom ak coobareem ak kattanam waaye suna foofu ba cay topp mooy bu ñëpp deebee nag bis ba ñuy dajale moo ñetteel bi moo ñaareelu jaaruwaay bi dee am na suul nañ waaje wala suuluñu ko bañ laaj ko lañ koy laaj ba rey ñëpp dajalewaat nag ci benn barab ci mel ni pénc ku ñu yee rek jërul muy laaj fu muy jëm xam na ko yàllaa ko moo ñaale ak loola ba ñëpp daje fa loolu yomb naa xam ci bis bu màggal ñëwee walla yenn yenn gàmmu yi foo dem daamar ya jëm ci dëkk ba nit ñi dañ fay xat-xat lool waaye bu ñëpp wàccee nag ku ne wutali barabam loolu la ñu tudde dekki ku jàng alxuraan danga ca fekk ngeen ngeen war a gëm ne inna saata aatiyatun la rayba fiha wa anna allaha yabaasu man fi lqubur ba ca topp mooy dajale gam ñuy dajale mel ni pénc fa la xew-xew bay amee xew-xew bi may bëgg a waxtaane fa lay amee dajale nu fa kenn du ko walle doo laaj diw mukk ñu la ñëwul ndax xew-xew yi mooy joxe misaal nii xew-xew adduna yi gàmm la wala màggal la léeg-léeg ñu la diw daa am gàllankoor moo ko tey ñëw wala dafa tukki fekk ko fi waaye foofa koo laaj nga gis ko wala nga bañ ko gis waaye kenn du ko wallee moom ñépp ay ñëw moom la alquran di wax ne wattaqu llaha wa alamu annakum ilayhi tuhsharu waaye ba ca topp mooy gëm ne fa la àjjana ak sawara nekk am na fa it fu am ndox mbalka wala dex wala daal nit di xame ndox mu bari fa mu am loolu it ma nga fa ndax bisub kero bisub mar lay doon gannaaw fii ci àdduna lañ nekk def fi aw xew ñu naan ndox mi manqué na waxaale wuñ fu àdduna bépp daje nag ñu jiituñu ak ñu mujj waaye ndox moomee fexe ba naan ca jar na lu nekk moom la suñu borom di wax yonent bi naa ko inna aataynaaka al kawsar kawsar fa salli li rabbika wanhar góorgóorlu leen ba kenn ku nekk mën caa naan ndax ku ca naan dootu mar ku ca munta am tuux toqoog ndox nag jëriñ mu yaakaar ndax ña cay naan ba man di àjjana la ñuy jëm dutuñ dutuñ soxlawaat ndox yàlla nun ci yàlla boole aljanna nag moom it lu cay tax a dem nit jar na lu nekk saariu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha wala wa jannatin arduha samawatu wal ardu uiddat lil muttaqin moo tax ab yaa xam ne ci alquran waaye sawara même jàkkaarloo leen nga xam ne ku demul fee fa ca des lay jëm yàlla nun ci yàlla musal moom it suñu borom moo gën a bañ ku cay dem moo tax mu ne fa in lam tafaalu bu ngeen defa gutoon li leen fa yóbbu walan tafaalu bu leen ko def mukk fattaqu nnaar allati waquuduha annaasu walxijaaratu yàlla ñu ci yàlla musal waaye bi ma ci tànn tey mooy bis ba ñuy regle suñuy jëf lu waay jëfoon rek ñu ne la mi ngi nii al yawma tujza kullu nafsin bima kasabat tey moom laa zulma al yawm kenn ku ne lu ñu teg ci sa loxo xamal ne yaa ko moom mu gënal la wala mbañ la gënal te jëru sikk sàkk ndax lan inna allaha sari'ul xisaab du ci jëlante machine du ci jëlante bindukaay ak kaye waaye waa ji mooy taxaw di wax ba ñëpp dégg su boobaa ñu ne ko acca yow kay xam nga fi nga jëm su boobaa tànd amatul tàndatu déedéet nit ñi ku ne xam na fa muy jëm day daal di doxal rek wutali fa su ko defee nag ñu fab siraat teg ci kaw sawara ku ko jéggi dugg aljanna ku ko jéggi dugg sawara yàlla nañu ci yàlla musal foofu it faw aw nit ñi jaar fa ñoom ñëpp wa in minkum illa waariduha kaana ala rabbika xatman maqdiya bis bi ma ci tànn nag muy bis bi ñuy réglé suñuy mbir bu ñu demee ci alxuraan danañ ci fekk suñu boroom di wax ci làmmiñu Muusa naan Muusa ko waxoon ne qaala Muusa inni ustu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin laa yuminu bi yawmil xisaab yàlla yàlla nag ma musal ba bu ma fàtte mukk man ak ku ma déggal bis bi nga xam ne ci la yàlla di teg peesewukaay ya peesewukaay pot dana natt fii ci àdduna ay balaas di natt ay waaraam di natt waaye foofa nag yam àndal ak fa ñuy jaar ba bañ fay àgg bokk yi ma mat a bàyyi xel lool ndax yooyu yooyu ma wax yépp benn bu ci nekk ak fa ca na ca nit di jaare kenn ku nekk ak jëfam sëriñ bi bind na ci téere bu ñuy wax mawaahibul quddus ne soo gisee yowmul xisaab bari ay tur yam àndal la tax ñu di ko wax ci ay tiit ay njàqare ak i biir yoo xam ne day xëy xëy ne wal bit te kenn foogeewu ko woon noonu asmaauha dakaraha min sha'ni kathiratan jiddan ala alqurani wa hiya dalilatun ala al ahwali wa shiddati al awjali wal ahwal nee na bisu kër la suñu borom teg peese wu kaayam ya ñiy xooli peese wu kaay lottu nañ ci jumtuwaay boobu su ko defee bu fekkee daa peesele lu barem na gàññi gàññaaral mu dànkal dànkali romb gaa yi jaar siraat nu mu ko neexee wala sax du ko yëg dugg aljanna yàlla nañu ci yàlla boole fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi iishatin radiya waaye bu dee keneen nit wet ga waajay jëm ci safaan ba lay jëm moom wa amma man xafat mawazinuhu fa ummuhu haawiya moom la sëriñ bi wax ne wa yadaau almizaana rabbuna alkarim li wazni acmalin wa satruhu arum ku demee ni sëriñ bi bu demee bay ñaan yàlla naan yàlla yàlla nga ma suturaal ba ma diis la gan sakkantuma ak nun ñii ku ko xam danga ko ragal fa thiqalu lmisaani yudra bilfalaax wa xifatu lmisaani tudra biltalaax bu ko defee nit ñépp taxaw nag dajee loo fa di xaar kenn ku nekk aw turam ñu natal ko jamono ba ñuy xaar nag kenn du laaj sa moroom noo sant nit ñi duñ ko tal amuñ ci soxla kenn du laaj néeg boo bokk wala askan boo bokk wala génne koo bokk wala meen moo bokk wala diw sama xaritam wala diw sama mbokk wala yusalu xamimun xamima kenn ku nekk naan nafsi nafsi li kulli li kulli mriin minhum yowma idin shanun yugnihi waaye nag bokk na ci li ab jullit di jàpp gëm ko ci ne bu kenn nekk kenn mënul fa dara kenn ndax bu kenn ku nekk naan nafsi nafsi sëñ bu mag bi bind na ne yonent bi moom sallallahu alayhi wa sallam yàlla may na ko mu jàkkaarloo ak sunu boroom ñun ñëpp ñu ne ci ginnaawam ku mu xool gisula ci ginnaawam nag na seetaat moo xam la ko fa tee teew nee na su boobaa danaan yàlla ummati ummati yashfau sayidu lwara fi l ummati fi baadiha yowma yaqulu ummati shafaatu nabi moom la alquran di wax ne asa an yabaasaka rabbuka maqaman mahmuda maqaman mahmud yonent bi nag sallallahu alayhi wa sallam nee na bis bu yàlla tegee balaas yi di nattalaate ñi muy jëkk nattal ñett lañ xeetu yonent bi lay jëkke tànnaat ci xeetu yonent bi ñetti xeet ñett ñi mooy boroom xam-xam boroom xam-xam nag suñ ko tuddee bàyyiwuñ benn xam-xam benn desut benn rawati nag muy ab jullit ak lu mën a jàng waaye boroom alal moo ca topp waaye shahid moo ca topp mooy koo xam ne daa jóg rek ne moom day xaraji fi sabilillah ñett ñooñu kenn ku ci nekk yàlla dana ko taaj ci kanam nit ñi donte dana taaj ñeneen waaye ñett ñooñu la la tuddagun lañ tuddagun su ko defee boroom xam-xam bi yàlla daf koy woo ne ko woow yow day waxoon nañ ne ku bari xam-xam nga sa xam-xam boobu ndax xamoon nga ci li ma yónni woon Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kooko ne ax kay leeroon na ci sama bopp nañ mu ne ko loo ci jot a def mu ne ko ca laa doon liggéey guddeeg bëccëg yàlla ne ko waxoo dëgg malaayika yi feelu ko ne waaw waxul dëgg di waxul dëgg ji mel ni riirum yàmm ñëpp xam ko ñëpp dégg ko yàlla ne ko yow kay diw boroom xam-xam la woon képp nga ca bëggoon amoon nga ko ci ci àdduna jeex na amee luñ la dara kon neel coow xam nga fa nga jëm ak lu may mën a xam la waaye bu dee ab jullit la moom xeetu yonent bi la ñuy jëkke te moom bokk na ci ñi ñuy jëkke moom teg ca boroom alal boroom alal it yàlla dana ko laaj te lim koy laaj moo ko gën a xam waaye àtte nag moo laaj loolu waaw yow day ñaagoon naa la ba musoo ñee kenn waaw wala déet mu ne ax kay mu ne ko waaw loo ci jot a def mu ne ko bokk yi xam nañ ne ñaagoon nga ma kenn ku ne gisoon na ca boppam ñaareel bi it ñu dul ay bokkit daanaa leen mosal sama kem kàttan yàlla ne ko yaa mën a wax muy dañ malaayika yi feelu ko nam feeloo woon kële mu ne teg yàlla ne ko yow kay la nga jublu woon ca sa joxe googee mooy rek nit ñi ne ak a tabe ak mooy dog bu mi gàcce yi kese abu hurayrata nee na ba ko yonent bu waxee wax ki shahid ki jàppe shahid ci anam googu suñu boroom ne ko yow jubli woo ci woon ludul ñu ne ak a jàmbaare ci xare bi képp amoon nga ko ca waxoon nañ ko jeex na nee na bi ko yonent yonent bi agsee foofu dafa fab yoxoom yu tedd ya fëgg ko ci sama bëtiwoom yi fekk maa ngi maa ngi sukk fi kanamam ne ma ñett ñii ñooy jëkk a yëg sawara ñépp ndax ñoo fay jiitu yàlla nu ci yàlla musal ñett ñooyu nag yeneen ko teg mooy bu dee boroom xam-xam bi la bàyyiwu ci woon xel yawma yaqumul xisaab bu dee boroom alal noonu bu doon ki nga xam ne dañ ko ne ñëwal rek toppal ci ñu mu topp ci ñoom it bàyyiwuñ ci woon xel ne yàlla dara du ko raw te al yawma naxtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun foofa wut seere yu bari jaru ko gannaaw cër nit ki day seere wa qaalu li juluudihim lima shahidtum alayna qaalu antaqana allahu alladi antaqa kulla shay la leen taxoon di def du dara lu ma njistal kese di njistal di njistal ba dugg ci daayira bu ñuy wax nifaaq ak naafeq ñu di leen aw awjee di leen tudde kataas ba bis ba xëy xëy na jomm agsi ñu ne kot ne xoj ne xoj jaax su boobaa nag suñu boroom nee na buñ joxoñ kenn ne moo ma tooñ ne moo ko tooñ waaye nañ jëkk a joxoñ seen bopp te bu joxoñ ba teggi ko ci seen jëmm laa zulma al yawm inna allaha sari'u al xisaab kon yawma yaqumu al xisaab bis ba yàlla di teewal ñépp kenn du ko walle ak ku mën a doon luñ ko wóolu wóolu ay waxam moom waxi suñu borom moo koy gën a dëgër te sëriñ bii nga xam ne moom la doon jàng mbindam léegi waxoon na ne fu waay dégg teraanga joo xam ne liggéey yóbbuwu ko fa na jëm foofu man awma ko awma jooge teraanga te moo ne siiw na loolu de ñu naan nee na seen teraanga ajuma ko ci seenub liggéey seenug dem aljanna ajuma ko seenug jaamu yàlla loolu dara la wéru ci ndax bu demee ba naan yàlla yàlla nga ma sutural bisub keroog kenn ku nekk lu mu xam moo la koy gën a ragal fuuf nee na woon it ku xam fu ñuy duggee aljanna ëllëg di su ko jaamoo yàlla wuti leen ko mën aw ma kon boog bis boo xam ne dangay gis ko ne gu xëy jekk-jekk rek ba jaaw weex tàll ba jaaw kum dal adduna dañu naan ko dangaa bari jafe-jafe waaye foofa gone gu ndaw dana fa ba jaaw weex tàll gën a weex maamam sax nga gis jigéen juy nàmpal doom ja di xaru taataar di jooy ba taataar di kadd kadd mel ni ku kiris te du ko tal kenn wasin te wasinam jotagut ndax tiitaange nga gis ñuy kadd kadd mel ni ñu màndi te dara jotu leen loolu alxuraan la yawma tadhalu kullu murdaatin amma ardaat wa tadau kullu dati xamlin xamlaha wa tara nnaas sukara wa ma hum bi sukara kon boobu suñuy jëf ak suñuy wax nañ ci bàyyi xel dee moom ñépp a ko gëm yowmal xisaab nag man mosuma faa dem waaye yàlla mi xam lépp fekk ko bind ko teg ko fa gis ko nii ñuy gisee lu nekk sa biir nekk moo ko wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu jàngale ko ne ku faatu yàlla dana ko dekkal bis boole leen ñoom ñépp ci mën pénc taxawal ay peesewukaay kenn ku nekk mu peesal la nga doon def loo sa gis nag bu mu la jaaxal jawa moom la wolof daan wax ne samaam bul ko gëj a gis mukk ba defee ne sax na ay bëñ yàlla ba la mu wax ba mu ko waxee ba fi mu nekk loolu rek mooy wéy te ñi gëm yàlla ñépp lu yàlla def da leen di neex duñ ko muñ am na ku ñëw ci suñu mag bi ne ko barab sangam la bokk bëgg na di ko siyaar si waaye lam fa mu bokk tax du fi ñëw mu ne ko fa nga bokk lu mu mu ne ko pas-pas la mu ne ko lim fas lu mu mu ne yàlla kenn la mu ne ko mag moom fa daje mu ne ko ay wax la itam de mu ne ko lu muy wax mu ne la ilaha illallah muhammadun rasulullah mu ne ko ñoo fa daje mu ne ko ay jëf la itam de mu ne ko lu muy def arkaan yi nga xam ne ay jëf la yépp bu mu ci wax mu ne ko mag moom fa daje mu dellu si pas-pas yi gëm na ne bis penc dana am ak yam àndal yépp gëm na amok malaayika yi gëm na téere yi ñuy wax ci alxuraan yépp alxuraan la ci jot a gis mën naa gis injiil ak injiil waaye yam gisut yépp dëgg la ñin dégg ñun yàllaa leen yoon yépp dëgg lañ moo xam ne anbiya ak ak ak i mursaloon waaye ba agsi ci lu mu wax mu ne ko ñoo fa daje ci gëm gi ba agsi ci lu yàlla dogal da koy muñ sëriñ bi ne ko foofu nag wute naa fa ak moom ba faw man lu yàlla dogal daf may neex kon boobu bis bu yàlla peeseelee aw nit ñuy dem nga xam seeni tur xam seeni sant ñu jëm feneen bu ma jaaxal luy neex sëriñ bi la ndax yàllaa ko dogal moo dogal ñuy dem fee ak ñuy dem fee ku dem fee dara da koo sob fekk na yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ku mu neex dem aljana ba mu des ku bañ ñu ne ku bañ ku mu doon mu ne ku wéy ci sama ndigal yi ma yàlla digal ma digle ko yàlla noonu yàlla defal dégg ak topp te mu suñu seytaane nekk bakkam yaxfirullahu lana wa lakum wa lisaa'il muslimina